ñu ngi solo ak yooyu que yooyu doo koy dégg doo koy dégg. non mais Queen Biz yéen xam ngeen di bonul. Mm-hmm. moi je suis une femme de valeur et de principe. man kenn mësuma dégg ci lu ñàkk fayda nag ci réew mi yàgg naa ci showbiz. dañu waxante dëgg ndax man foog naa ni ma wee wala ni ma mel man ak ni ma sañee wax nañ ko waxee noonu. am na noo xam ne su ma ko meloon du ma doxalee noonu. yaa ngi dégg sol nag lu sexy taxul nit bon. dani rek showbiz moo ko waral euh, dani rek man eh, en fait man sax j'aime j'aime bi comme ça sax je me sens bien dedans mais ci sais que bi ne fait pas le moine loolu taxul benn jigéen bon on est des femmes de valeur am diine am yoo am yoo xam ne dañ ko wax waruñu ko sax ci presse mais xam nga bu wax jotee dañu war a wax fonk suñuy nit fonk suñuy mbokk fonk suñuy nit mën suñuy nit xam nga xam àdduna nag waaw kenn du ñu dugal ci naka su dul noonu waaw parce que xam naa ne tey Queen ni mu mel nii tey jii am na nu mu doon mel gars yi kon damate nañ ko bu yàgg de waaye man kenn musuma dégg ci yooyu xanaa nag mbalak dina am parce que man sax maa bëgg yooyu. man maa bëgg di ambiance di xumbal réseau yi di def yëfu kii. parfois je fais la xanaa xanaa xanaa foofu la ñuy duggee parce que dañoo gis ne année bi mhm. Queen bis ak ay sorties dafa doy waar. kii bi chaque année day génn génn na également ci kan bi wax gars yi commencé jàppal bàyyi temps yi aussi nga génnaat ci li nga xamante moom mooy gouvernement bi donc loolu mooy xam nga àdduna noonu la nit moom da ngay màgg euh, showbiz neex na torop mais nag damaa nekk di màgg màgg bi mooy côté maturité expérience bi ma jot am yàlla sagesse qui vient en fait. foowuñu de on joue pas côté politique bi ma dugg nii dafa nekk lu dëggu ci man parce que dama dem ba toog ba xool xam ne nag il est temps dafa jot il est temps dafa jot donc euh, kon loogi da ngeen di gis beneen queen buy ñëw te lu mu laaj dañ ko ciy def de plus en dañuy nekk de plus en plus responsable xam nga sànq yaa ngi doon wax naan queen bu sexy bi queen bu lii loolu queen showbiz la mais temps yi yéen a ngi gis beneen facette queen muy queenu politique waaw donc euh, xam nga lu mu laaj dañ ko ci jox te foog naa ne léegi nit ñi comprendre nañ que ni queen bu sexy boobu du benn queen bi nga xamante ne rek c'est une fille folle buy dem nii nii nii non non non non en fait c'est c'est le c'est ça la la musique aussi c'est ça y a l'art de faire rêver les gens nga ñun dañuy def parfois xam nga bëgg nit ñi bëgg rek de billaahi wala noonu laa ci amee nag ay sa mag de ay mag yu bëgg Queen Biz xale yu bëgg Queen Biz génération bi même chose donc ñun on n'est pas là pour pervertir wala di yàq xale yi non non non de là loin de là tey jii sax looloo waral tey sama dugg ci politique. Euh, kiwis ñu gis maanaam dugg bi nga duggee si wàllu politique bi. Mhm. ñu toog ba si saa gis nga daal di publier sa sa page mhm. benn vidéo. Mhm. ki xam ne kii di euh, Gabrielle Kane moo si nekk. ak Maty Trois Pommes gaa di génn yëg si ay kàddu. ne def ba sentir ne peut-être. est-ce que um, maanaam choix bi nga def portugis ñoom mooy sénégalais yi jàpp ne Queen Biz port porte bii la dina jaar dugg si wàllu politique non utuma porte man utuma porte te bëgguma tey xam nga ñëw di wax ay nit wala di di di may kenn buzz non non non non non utuma porte xëy na nit ñi ñoo gis loolu mm-hmm. mais man ñi ma xam xam nañ ne man xëy na sax boo doon xool sama ay interview yu yàgg yàgg naa ne man dinaa def politique du pour dama toog nii rek gis politique nii nii ma ne damay dugg non non non non non c'est pas ça en fait man j'ai des études en sciences politiques man droit la jàng sama master ba ma koy def science politique option science politique euh, droit public international option science politique relation internationale ak diplomatie lu ma miin la lu ma xam la yàlla nag la des nit dafa am destin et nul ne peut échapper à son destin sama destin man mënuma ci woon échapper yàlla moo ne non non non non politique man envisagé naa ko mais yàlla moo ne. d'accord Queen day way dina way ji suñu famille kenn mësul way kenn mësul tëje micro mais yàlla moo ne man dinaa way. Mhm. yàlla moo ne ci way la ma nit ñi di xamee ci way la ma àdduna di xamee balaa may dugg ci politique dama koy nangu. sama ñi ma jàngandool tey ñii ñeneen ñi ñii ñi ngi liggéey yor nañ seen ay poste de responsabilité wala dara du sama ñàkk mën jàng. non non non mais queen, parce que man sama jàng tey dama koy wax en toute humilité. parce que caméra yi ñoo ma tiim. télé di ma seetaan. d'accord man sama jàng mu su ma jël premier ma jël deuxième. su ma jëlee deuxième benn yoon la te ma koy fàttaliku muy ba may def bac te centre bi la de waxuma école classe de centre bi LPA dama jël deuxième am mention keroog dama jooy fii ba sama ñoom papa tiit foog ne dama échoué. man ne leen non échoué wu ma deuxième bi ma jël ak mention bi moo ma metti gaa yi dama da nga réew ma ne leen non man pay rek man loolu dafa nekk sama yëf bi may def licence ak maîtrise dama génn major sama promo xam ngeen luy major mooy yaa nekk première kon xam nga man tey jii je devais avoir une carrière très très brillante mais yàlla mooy dogal ma ne damay musique te dama ko bëgg muy passion passion bi dominé ma nekk musicienne àdduna xam ma ci tey su ma politiquee damaa war a politique. foofu la ñëw a politique parce que euh, actuellement euh, ku ne xam ne ni wax nga ni peut-être sa destin la. Mhm. mais est que aussi yaakaaroon ne est-ce que c'est le bon moment pour Queen Biz daal di génn. di mhm. wax ci politique bi parce que xam ne ne actuellement politique bi dafa xaw a tabatembe. Mhm. alors est-ce que nekkul risque tamit heure yi yi nga génn di wax ci politique. musuma ko ragal. mais nag dama leen di ñaan xam nga après koor gi dinaa woote conférence de presse tey nag ndog bi mooy ordre du jour xam naa bu ñu fi jëlee waxu politique du jeex mhm. mais dama koy dagg ngeen ñëw ci conférence de presse bi balaa koy dagg am na benn question xam naa ne loolu moom moo nar a a yëngal réew mi mi léegi benn pour sama dernière question leen mhm. gis yow dugg nga si wàllu politique bi mhm. mais dafa am kenn koo xam ne tamit mu nekkoon journaliste ñu gën ko xam si mu tuuti bu dugg si dugg si wàllu